non ñu noppalu <laughs> parce que ay parti ticket yi ah war ñu nekk di sonal nit ñi xam nga ñu war a génn ay xaalis di leen financer loolu tamit du dëgg ay parti juróomi nit la ayam naa fàtte boole koog troisième mandat bi ndax dagan naam daganul. <laughs> ah mais ah, <laughs> ah, non non. loolu moo des partis. da ngay réduire temps yi rek. parce may dóor dóor yoo xam ne. Ah, temps yi dafay dafay li mu wax dafay indi nuance entre financement parti politique ak financement activité politique. tey Pastef mën nañ ab def appel de fonds am 100 millions. mais parti socialiste jël na fi terrain jaay ko jaay ko total. def ko station. mu leen di fay ay millions par mois sur cinq ans ça fait beaucoup d' argent donc tey pour man loolu du problème li ñu nekk problème mooy déjà dañu réguler champ politique. mais ñoom ñoom moom seen terrain. waaw waaw loolu la expliqué. c' est un de financement c' est un de financement comme Pastef ni mu amee droit def appel à financement parce que loi bi daf ko ne chaque fin d' état financier. donc c' est au l' intérieur de vérifier est ce que fonds yi c' ah. est dama lay wax ne loolu mooy intérêt intérêt euh, nañu réguler déjà le champ politique. waay parti bu dematul élection. ñu xool nañ leen éliminer. mais mais am na ñoo xam ne dañuy dem coalition uniquement pour poste. mais wóor na leen ni ñoom kese du ñu am dara. fi ma d'accord mais et puis vraiment. bu mënoon a def comme euh, aux États-Unis les républicains les démocrates en France la gauche la droite. mais mais yow ay mooy les ah, grandes démocraties mooy États-Unis États-Unis mais xam nga ne benn bokk États-Unis parti la ñoom ñoo bokk xalaat États-Unis booy dem mënoon nañ ko def parti ñoom ñëpp loolu États-Unis da ngay dem campagne présidentielle yaa ngi defaan sa parti da ngay def appel à fond <laughs> non moom benn bokk sànq dafa dagg raisonnement ah, parti mais mais mais mais Zator sois sérieux parti si am nga parti eh, États-Unis non une minute États-Unis da ngay dem campagne présidentielle da ngay def appel à fond gars yi di cotiser ñu limiter cotisation yi nga mën mobiliser ay millions de dollars France lay jox plafond ne waroo dépenser plus de temps d' argent campagne bi. parce que boo amee yenn score dañ lay rembourser sa sa xaalis. fi ma d' accord ak Bécaye tey a. non ak euh, euh, ah, euh, ah, boo indee loi bu mel na parrainage. mais parrainage ça coûte de l' argent. tu l' en à un nga ni ko pour la transparence pour la démocratie da ngay ut ay oto dem ci dëkk bi uti parrainage dépenser ay dizaine de millions te campagne ñëwagul donc mën nañu indi loi bu xamante ne candidat am nga parrainage bi nekk nga ñu jox la un montant forfaitaire. yooyu ay mesures yoo ñëw la abu. comme aussi mën nañu alléger caution bi. non non Bécaye foofu abu pour deux minutes ah no mais Bécaye xam nga li am solo. mooy mooy xam nga tamit ñun dañuy wax. bu ah, ñuy wax dafa war a leer. parce que réew mi léegi wax fi lu leerul dañ koy couper sànni ko ci vidéo yi wax loolu ko neneen. Mhm. moo tax bu bu il faut ñu ñu ciy jàppale benn côté parce que réseaux sociaux mën na taalum réew. li tax loolu di metti politiciens wax ci day mal à xam nga man bokk na li ma bàyyi politique. financement wu parti politique ak financement campagne électorale bokk na sax ma gedd ko ku la fi taxaw yëkkati loxo ne la ni ma koy defee nii la dalay nax mm, ku la ci taxaw nag di la ko wax nii parce que budget élection c'est des milliards mhm. élection présidentielle ak locale ak législative c'est des milliards li waral chef de parti bi di moom partem ku mu neex dàq ku mu neex jox post moom moom saisi moom saisi moom lépp big yi donc loolu dafa am an am na ku trouver solution bi sànq ne bu ñu ko bëggee solutionner fonctionnement caisse noire parce que caisse noire alliés yi dafa am lu ñu leen di jox subvention. Mhm. kenn ku si ne Mamadou Ndoye wax na ko bi mu ne joxuñu ma ministère waaye dañ may jox 5 millions moom lañ ma daan compensé taawaat cap 21 daf leen daan nattal. Mhm. donc ci noonu la ñuy jàppalee gars yi bu ñu bëggee dem élection gaañ raw gàddu gi dinañu financer ñoom parti yu ñu créé parce que créer parti Sénégal jaarul yoon. da am na récépissé yoo xam ne sax amul kii association amul lenn duñ dañuy ñëw rek délibéré jox la. parce que 305 parce que loolu El Hadj Mbodj liggéeyloo woon nañ ko ci Abdou Diouf liggéeyloo woon na ko ci. en 81 donc bu ñu ko bëggee régler ci débat bi ñu jëm nii ci statut chef de l' bi ñu te posé woon boobu la ñëpp daje ñu taxaw ñu waxtaan parce que xam nga lu tax ñeme wuñ ko waxtaan. homme d'affaires yi mais statut boobu léegi am. Euh, ko waxtaanaat rek statut de de l' opposi de mu am ci dëkk bi. ñiy dem élection compétition nombre bi nga am ku demul élection mu wàcc ñu rationaliser waale les partis ba pare eh, nekk ci dans l' administration du Sénégal te toog fa bu ñu bëggee am poste bu yéeg dañuy financer chef de parti ak chef d' entreprise privé yi nga xam ne ñooy finance aussi les chefs de parti bu ñu ñëwee jox leen monopole marché yi loolooy tax du fi gaaw a jóge. jërëjëf monsieur le maire. waaw ah, jërëjëf xam nga li ñuy wax yëpp. Euh, mais est ce que mënuñu woon a boole. boole départ ci moom ah, boole ñoom parti yëpp ñu. ñu ñu ñu ñu parti benn bokk yaakaar yëpp mu doon parti xalaat la gis-gis la. mais gis-gis gis nañ eh, mais gis-gis yi yenn saa yi mer ngeen bu la de. parce que y' a beaucoup de attends y' a beaucoup de dafa am. lay wax c'est baana baana politiciens.